jërë jëf euh, mbokk yi émission autour du micro de dalal qui koo xam kilifa la politique sénégalais nous ko xam ñu gën sans langue de bois moom buy wax ay dëggam dañuy loolu Jean Paul Diaz dirigeant diriger bloc des citoyens Nous ñu xam ko BCG mu yàgg nekk ci politique gi ak ñu ko euh, ci lépp luy am Sénégal problème ci koy

et tous les auditeurs éventuellement ñi koy déglu en radio et daal que mangi cette disposition dal sa disposition yow à travers question yu ngay waaj a posé. question yu bari na mais bi ci njëkk moo déclaration politique générale gis nañ de euh, ki nga xam modi moo di premier def lu tollu ci fukki waxtu ak ben mom mom rek discoursum def na 2 heures de temps 30 minutes fukki waxtu ak ben ci assemblée nationale est-ce que lolu japp nga ne amna na njariñ luñ ci mëna a ci Sénégal mais amul ben njëriñ euh, pour plusieurs raisons d'abord euh, Boun Abdallah Dionne bobule xam nga né exceptionnellement le nekkat premier ministre pion oh. mom sax ci bopam bëggatu ko waaw dafa am ay yëf yo xam dafa ci yenn place lolo tax mu premier ministre ben ñaarel bi mom nekkoon na fi premier ministre lan la mun wax nit ñi tay te waxu ko euh, démb wala bërka démb donc avons le un sens man personnellement parce que am un intérêt je pense quau delà de cette affaire là nous devons poser une poser question Le Sénégal le premier ministre déclaration de politique générale pas lui qui détermine la politique de la nation est-ce que Jarre je pense que nous ko supprimer premier ministre assemblée nationale mon par exemple ñun avons gagné une élection législative beaucoup de dana am sens parce que premier ministre bu ñuy beaucoup kooku day ñëw ak programme bu mais koo xamee yaa ngi fii ñu ngi lay renouveler di la kii amul sens je pense que premier ministre système sénégalais paye warul def déclaration de politique générale parce que d'où moom mooy déterminer politique bi dégg euh, même beaucoup beaucoup respecter respecté beaucoup respecté dem

sa gëstu ci walu koom-koom est-ce que jàpp nga ne fi nek ni nii loolu lu dëggu ci Sénégal. mais euh, d'abord dama bëgg signaler que BCG waxon nako ko. Mhm. ñu bare di tey xëy na ko wala suñu baat bon soriwul mais waxon nañ ko ba muy commencer nañ ko wax ministre des finances bi ñu nekk fii moom sax du ci du ci sañ-sañam mais ci ci ci ay ndigal lay dox mais mu ngi endetté Sénégal alors on te dit oui endettement bi euh, sorewul comme ma 60 du PIB comme comme au Sénégal at gu nekk eggagu fa et problème bi du loolu. problème bi yaa ngi yaa ngi mais pour def lan c'est une mi ñuy sow seen affaire yi ñuy wax yépp ci endettement lañ koy mais kooku ban mérite la ñu am amuñu benn mérite. je pense que temps yi ñu ngi commencer am difficulté am xaalis je pense je pense parce que même les les les comme ay FMI ak ñooñu xam nga ci waxu tubaab. Mhm. nee ñu xëy l'endettement est soutenable mais y a ay indices qui xam mu ngi woné ne que endettement bi warul continuer non donc lolu lolu problème la je pense que le but ce n'est pas d'endetter le Sénégal parce que bi ñi jël Sénégal ñom ñi mais bobu endettement bi ko na bu bëri. Mhm. té lolu effort yo xamné euh, Abdou Diouf moko ko déjà wad de profité ci bi wad di jeexal wad a commencé à surendetter le Sénégal Il avait commencé à surendetter le Sénégal mais ni bu pas un accident dañ ko arrêté mais nous, ngi continuer mais man ce que je pense nous devons nous leen neex bés nguur gi à ce moment là je crois qu'il faut nous auditer la situation c'est-à-dire ban ban bor def fan la dem lan foo ko je pense que y a des individus comme le président de la république ci bopam, comme le ministre des finances qui bopam, ils doivent répondre sur leur propre bien leur propre patrimoine parce que c'est trop facile ngay endetté et puis da da dañ ma dañ ma signalé kooku ça reste à prouver mais peut-être ñi nekk ministère des finances euh, xam nañ ko mais il paraît que même bu endetté wu quand l'État s'endette am na partie boo xam ne dafa mel ni ci seen fonds commun yi dafa mel ni ñoom ñoo dugal xaalis donc dañ ciy touché da nga defee loolu c'est normal je je sais pas ndax maa ngi expliquer bu baax affaire bi. nga ne fonds commun. dañuy leb xaalis dañuy leb ci li ñuy leb. ñu jëlaat ah, am na réglementairement nous dañ des ci ristourné du du du mais c'est réglementaire semble-t-il ça ils s'endettent et ils touchent comme par exemple dans les services fiscaux ils ont des ristournes ils ont des des des ils font, fonds euh, comment fonds commun bi am ils font muy ñëw Ils day dugg ci fonds ils font dañ ñan font ñu bëgg a yàpp ñan la bëgg a tu comprends alors je pense que gens, les la war

mais on est en train de se surendetter. Alors on joue sur les mots, ouais, eh, tel pourcentage, etc., etc. Il y a des États, effectivement, comme la Grèce, comme l'Argentine, mais nous, on n'a pas envie de vivre cette, situation-là. Voilà. Moi, je me demande d'ailleurs, nous, les bailleurs de fonds, les partenaires en développement, nous nous jouer, je ne comprends, comprends pas. Manario, si nous les banques, da nga defee dañuy leb banque di ñëw di lebaat di lebaat di dem wala leb banque fi daw dem lebi keur daw dem lebi keur mënuñu di nek di ñu contrôler suñu capacité de remboursement ak lan lañ ci def alors les états nak ñom c'est du n'importe quoi moi je fais partie de gens qui sont convaincus que le Sénégal est sur la voie du surendettement je pense que lolu warna na warna arrêter benen point bi ma bëgg ñu waxtaanee moo di gis timit euh

man neena yoro mbaxane ba pare léegi man na nga sibil sa mbaxane wala nañ la sibil sa mbaxane yenn yabel la ñi ci gën dégoûtant ñi ci gën répugnant ñi ci gën nek ay vers de terre moy député yi ko voté ñooñu ils sont indignes n'est-ce pas d'être à l'Assemblée nationale mais nak ma ngi dalal Sénégal ci ben ci sen ma len di dalal xet ci ben affaire Assemblée nationale bi nga gis ni fi ak ñaari at ñu tas ko man mi maa la ko wax parce que xam nga dañuy dem présidentiel. Mhm. Macky Sall bu gagné daf koy tas loolu dama ci xam lu leer bu gagné daf koy tas bu gagnewul bu keneen gagné forcément daf koy tas parce que du assemblée nationale boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko installé ci yoon. donc consolation boobu la ñu mun mais fii ba deux ans effectivement mun na metti assemblée assemblée nationale bi 2019 mille dix neuf dañ qu'est-ce ku munti gagné présidentielle dañ donc je crois que 2019, 2019 y a une élection vers euh, mars à février mars présidentielle euh, vers le mois de juin par là Arsène euh, conseil constitutionnel qui peut manipuler comme ils veulent n'est-ce pas bon pour les mois qui restent nous nous fusionner nous fusionner euh, législative ak locale du ma kat de du ma kat mais lolou la la wax ne lolou lay yakane moy am kon nag lolou mo mun na tax ñu ki alors mais man xawmu numa kay ban bou la kay jëlee ban ni fan la kay commencé dégg nga euh, constitution ak règlement intérieur assemblée dama lay fàttali ni man jotona n'a nekk fii. jotoon n'a fi nek député. dama n'a ba nek vice président assemblée nationale. Mmh. donc am na lu tuuti loo xam ne xam naa ko ce n'est même pas du droit euh, constitutionnel c'est du droit parlementaire professeur de droit yi di wax tous ils n'ont jamais ouvert un livre de droit parlementaire droit parlementaire une technique c'est-à-dire droit constitutionnel d'accord il y a les règlements parce que assemblée nationale day jël a des règlements c'est des grands textes euh, circulaire qui le fournit. il y a les règlements de l'Assemblée par il y a un règlement financier tu vois il y a des règlements il y a des règlements pour faire fonctionner l'administration il y a ça il y a les usages comment on a souvent fait ou bien les usages que d'autres ont fait il y a même une certaine jurisprudence dans la pratique parlementaire loolu beaucoup de tanké, l'eau c'est le droit parlementaire benen affaire la c'est pas du droit constitutionnel ouais le constitutionnalisme Massamba tous le xamul xamuñu tous donc euh, constitution bi def mais assemblée nationale Sénégal pour Sénégal musul Nangou, ben député dem kanamou juge te levé wu immunité parlementaire mieux que ça même pour être entendu à la police yow dégg naa la sa émission nga cité kaawu Balde. Mhm. nga cité kaawu Ousmane gom nga cité Kaou Omar Sarr mais nous, c'était simplement pour que la police les entende wala la créer les entende entende on a été obligé de lever leur immunité parlementaire Baladar. dara di y a eu par la suite euh, le cas de Barthélemy moom dañu lever immunité mais il l'avait demandé alors quand on dit des choses aussi il faut savoir moom dafa ne dama bëgg ngeen lever ko pour ma affaire yi di am nu, ñuy ñuy ñuy bind assemblée dafa né bés bu kii bi ñëwee bu leen sax def débat na ngeen ko enlever immédiatement voilà donc il faut lolu immunité parlementaire buñ koy lever des fois même bala ngay dem police dañ koy lever sauf cas de euh, flagrant délit etc., etc. et cetera defuñu ko defuñu ko mais keroog conseil constitutionnel di lim sa tour ci ñi nga xamé fan lañ leen député kéro gogou minute bobu ci ngay nga député té ngay député donc lu tax ñu traîner bobu temps ba hein? alors on entend on entend le ministre de la justice kii nekk bon moom tam xamul dara ci affaire bi soi-disant professeur de droit et à qui fi nekkoon Nan oui hein, il faut que mu am les moyens de se défendre avec toutes les dispositions il faut que nous nous, qui bénéficie de la la présomption d'innocence mais quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence quelqu'un qui a tous les moyens de se défendre mais d'un en liberté mon défendre pourquoi tu veux courir en un procès Nous sommes malhonnêtes Intellectuellement, intellectuellement ay malhonnêtes alors vous n'avez pas levé l'immunité parlementaire tu l'as sommes xaar train de faire des nous défendre parce que texte est bien la commission entend le député dans le sens de doit entendre le député parce que ne il faut pas nu lire sujet verbe complément lecture intelligente. Ce lecture intelligente c'est pas sujet verbe complément entend le député qu'on ko entendre <coughs> entendre ñu ko ñu que euh, une sorte de déficit qui fait que donc côté il fallait que la commission dise la commission a été dans l'impossibilité de l'entendre Vous donnez à député députés. Vous donnez ay de terre de terre Vous donnez à la commission n'a pas été en mesure de l'entendre n'a pas été placée en situation de l'entendre donc qu'est-ce que la commission doit demander que nous rejeter affaire mais deux un beneen encore dañuy bind lettre procureur de bind lettre trans transité ko ci. je euh, ah, justice ani dossier bi. le le ay qu'il dit qu'il a le dossier day il n'a rien du tout Amoul ben dossier dossier bi dafa a entre les mains vous dites que oui bëgguñu gars le dem nettali ko ci mais nous ay député nous. ay député lañu hum. Bon niveau de de de confidentialité pour au député guérir une fonction peut-être alors si eux ils peuvent pas être con ils peuvent pas être preuve de confidentialité donc y peut tout dans le cheminement y a ban toute commission bi effectivement assemblée nationale boy convoqué de 48 heures minimum Yo 48 heures sax taf taf taf mais mun naa la ko jël dogatal la ko yëpp yëpp yëpp la donc à ce le euh, le fait de lever immunité boobu c'est illégal c'est irrégulier c'est honteux Sénégal amatul leçon bu muy jox kenn amatul leçon bu muy jox. décision bi ñu jël pour cautionner la yow décision boobu ñu bari dañuy jàpp ne euh, Khalifa Sall le concernant daf ko yàgg a bañ parce que nee na day niroog dafa nangu luñ koy jiine

parce que nit mun nga dem ba xol xol nga ne bon comme loolu la nañ ko def ñun am nañ ci yakar mais juge fi nek siste état bi fi nek Macky Sall bi fi nek yakar gi daal demeewul noonu. mais ñoom tàmbali na leen sax wax ne euh, requête bi c'est irrecevable. les avocats mais sen yoon nekku ci ñom ñoy ñom ñoy dogal sen yoon nekku ci ils sont incompétents pour dire ils sont pas qualifiés pour dire ndax c'est recevable ou pas non mun nañu wax loolu pour wax lu mais c'est le juge qui décide dégg nga de dëgg naa beneen tartampion nekk il faut que ce soit de l'argent mais franchement man de man man personnellement man bu démb doon tey du ma jàng droit <laughs> parce que idiot yep droit la ñuy jàng te comme comprendre ñu ci dara ba avocat yi juge yi laa la wax comprendre ñu ci dara dañuy wax n'importe quoi heureusement <coughs> que docteur du nekkul ci warante yu mel noonu ni ko ñun ñëpp ñu dee heureusement que yenn ingénieurs yi liggéey yenn affaires yi nekkuñu ci yooyu ni ko ñun ñëpp ñu yàqule y a que des avis des juristes pour dire des âneries ñeneen ñëw di wax les âneries pire que ça on on on on sait pas où on est cautionnement bi tayle la moo ko mënee wax ci wolof mooy loo xam ne da nga ko dénkaane da nga ko tayle da nga ko ci loxo nit d'ailleurs du juge bi moo koy yor ah.

te pour réeree nous diriger boîte bi Boba jamono ak nous dirigé diriger ñoo ci donc nous nañ ko à nañu hésiter cautionnement bi euh, personnellement au départ hésité, hésiter mais je pense que comme le fi nous nañ ko de toute façon ce n'est pas du perdu Ce n'est pas du perdu parce que <laughs> pour parce que c'est comme les hypothèques dans les banques pour nous réaliser qu'après après kooku une affaire Mhm. mais je pense que c'est bien de le faire au moins kenn du ne defu et je te signale. que pour ce qui concerne Khalifa ci boppam li mu joxe li mu participer moi yu mu déclaré déjà. déclaration de patrimoine. Ah ben voilà booba taa ne du yoon waru ko def tey peut-être que kenn du ne ci un milliard bi la Voilà. <laughs> voilà euh, ci loolu moo indi ci dossier bi ñu bëri dañoo poser des questions sur traitement bi indépendance de la justice te dafa bari ay contradiction tey par exemple si immunité parlementaire tey am na ko suba amu <coughs> juge bi buñ ne leen génne leen ko parce que dafa am immunité parlementaire ñu ne déedéet nga xëy suba teel procureur ne dafa am immunité da ngeen ko lëfe moom ay contradiction si biir même magistrature bi waaye dégguloo li ma la wax sax bu domba doon tey du ma jàngatu man bu ma bëggoon nekk magistrat nekk ko te ñoom ñii fii nekk yëpp maa leen di chef te que man magistrature intéressé wu moon bu ma ko bëggoon nekk nekk ko lolu moo lay won ne ne fii kenn dam ak yëfu magistrature indépendante da fi amul le Télico Le ñi sen président UMS boobule dégg nga balaa ma dé muy une indépendance de la justice il war def ay réunion bu leen ñu rey on est indépendant personnellement et tout le monde bu ñëpp indépendant la justice devient indépendante et même par rapport au procureur le procureur est un juge indépendant Bon ko était bu le procureur est un juge indépendant. Enfin, une partie au procès. C'est quelque pas D'où athée. Mais une partie au procès. Encore qu'il y a des textes complètement contradictoires. Mon d'où athée. Mais Bougnéné athée, mon, il est capable de bloquer. le juge d'instruction donne liberté provisoire. La chambre de d'accusation dit nañu nous bàyyi nit liberté provisoire. le procureur s'oppose à lui tout seul il, met en échec il bloque tout le système mais fondamentalement c'est un individu indépendant pourquoi parce qu'il est maître des poursuites il peut dire je poursuis il peut dire je ne poursuis pas et quand on lui dit une chose buñ ko bu une luñ ko dañ ko et c'est ce qui fait que mon bouille bind mon il est lié par ça on dit la plume est serve la plume est esclave mais la parole est libre et c'est ce qui fait que des fois dans l'Église, il ay procureur monter demander relax et pourtant nous peuvent pas poursuivre Nous peuvent pas poursuivre c'est comme l'idée que le parquet est un et indivisible c'est faux à l'intérieur du parquet il y a des gens qui ne sont pas d'accord mais bon dañ ci mënul dara mënuñ donc justice bi monde indépendance juge ne ce sont pas des individus indépendants et nous, qui est grave c'est que ay intellectuels quand même intellectuel honnêteté intellectuelle c'est pire que, le malhonnête qui vole. Parce que le malhonnête qui vole, ça comme du Koutia, il fait Nanditele, des mousses, des défaillés, Mais le type qui est intellectuellement malhonnête, c'est pire que tout. Voilà. Alors donc, il ne faut pas espérer quoi que ce soit. le plus grave, c'est que le juge, le juge d'instruction, c'est un juge du siège. Madame, il est supposé être indépendant. Il y a même des pays, des faits en France, euh, euh, tribunal de grande instance, pour qu'il nommé. Fille, je ne pense pas mais France tribunal de grande instance moi, nommé juge d'instruction c'est même pas euh, euh, tribunal de c'est un juge un nommé juge alors il est indépendant il est supposé être indépendant mais fille, il n'est pas indépendant il fait ce que lui dit le parquet parce que les avis qu'il parquet ne le lit pas les avis qu'il demande au parquet ne le lit pas il n'est pas tenu par ça et puis d'ailleurs, même s'il était tenu par ça, Amna Fokhamne, on a marqué indépendance. Alors la justice, malheureusement, n'est pas indépendante dans ce genre de dossier. Et bon, euh, je suis, je suis très, très sceptique. Alors, sur la caisse d'avance, caisse d'avance ou fonds politique, tu as le dossier barré. yow nekk nga faire comptabilité mine nga ko xam nga ban terme as-tu utilisé euh, allez man jot suis comptable public nommé par arrêté du ministre des Finances pour représenter le Trésor à l'étranger Je ne sais ma ce que ma li ñun caisse d'avance caisse d'avance c'est très plafonné y a 3 millions wala y dépasser 5 millions Maintenant, da toutes les dépenses nga justifier les nous les le réapprovisionner une expression réapprovisionnement nous donne le réapprovisionnement. tandis que FI, c'est un système dans lequel tous les mois que tu aies dépensé l'argent ou pas on met 30 millions à ta disposition que ça ne peut pas être une caisse d'avance c'est que la paresse des fonctionnaires des hauts fonctionnaires mon inhumain. Euh, tu prends un groupe de hauts fonctionnaires par exemple du ou alors, je sais pas moi même de l'école de l'éducation nationale donc ils vont chercher dans leur vocabulaire ci le vocabulaire ci sen ay concept fa faut que ben benn indiko lolou alors si par paresse suñ ko 15 voilà mais du 15 avances, ben deuxièmement en en comptabilité publique nak nga mun di bëgg top pour nous. fay nan nga nga di fay mais ni di fay les comptables publics ils sont plus responsables que l'ordonnateur mais ils ont placer sous contrôle judiciaire. mais eh, ils les placer sous contrôle judiciaire c'est ce qu'on aurait dû faire de l'ordonnateur en attendant man waxuma ne ils ont des fautes fait des fautes pas mm-hmm. waxuma ils ont fait des fautes parce que sont professionnels Ils experts Ils sont experts. Si vous expert su fekkente ne dem nañu weer millions jox ko nit gestionnaire pour mu téye à la disposition du maire c'est que dañ leen ko sant te xam nañu war nañ def et puis suñ leen tegee en en en contrôle judiciaire c'est que sait nañu mënuñ leen toppoo fenn lii c'est pas c'est même pas politique c'est pire que politique c'est politicien nguur gi muy Macky Sall ak ñoo bëgg dégager Khalifa Sall dañ ci tiit seen xel dalul ñu bëgg dégager pour mu bañ a nekk candidat loolu rek la parce que ñëpp xam nañu ne su nangu woon ne dootul nekk candidat jàmm ne ñooy mais en tant que citoyen wara a am ay ambition ay nit topp garaam bëgg mu am ambition yi lu tax mu war a reculer te ñoom ñii seen bàyyi moo jëndul Sénégal seen ndey dolluñu ko ci seen ndey mais c'est c'est c'est scandaleux alors comme léegi kooku affaire u Macky Sall Macky Sall mu ngi fooyee toroxal nit mu ngi fooyee suufeel nit mungi faut humiliation mais na xam que lu lu ñuy évangile qui triomphe par l'épée par l'épée périra comme des foyers. nañ donc l'eau affaire bi fond ay fonds politique ils ay fonds secret tout ce que tu veux ce n'est pas une caisse d'avance ce ne sont pas des euh, des des euh, c'est pas des fonds publics ordinaires euh, de, de la comptabilité ordinaire. C'est pas ça. pas ça. Et puis, beaucoup de D'ailleurs, on m'a signalé, mais on m'a signalé que juste d'instruction bini. Ah. Mais Bayam Joton ne finit que maire de Dakar. Ah, juste d'instruction bi finit que. T'es le dossier bi. Nous avons Bayam Joton ne finit que maire de Dakar. waaw nañ dem seet Bayam non la defoon booba jamono <laughs> ah ça c'est intéressant yaa top topp nit yaa ngi sànq nit yaa sonal nit.

<coughs> dialogue politique mënul am en tout cas man bokk naa ci ñi ne tant que Khalifa ñu ngi ko jàpp nii mu nekk un prisonnier politique dialogue politique mënul am nañu def daal lu neex li mënoon a am te ñun ñu li mënoon a am mooy ay discussion ay entretien ay échange avec le ministre de l'intérieur usage la maanaam ma ministre de l'intérieur bu ñëw da ngay parti politique di diisoo ak ñu fi jaar yépp def nañ ko té ñun BCG saa yu mus am ànd nañ ci jot lettre lettre bi nañu man de bu ma nous, da ngay ñu waxtaan lettre bi mo dialogue nekku ci benen bin ñu ci dialogue da ñu waxtaan ci ci élection yi ñu ko ak ñu def ñu organiser nous BCG ñu d'accord ci ndax ñun dañu d'accord. ci Manko taxawu Sénégal li ñu nous sommes bi Manko taxawu Sénégal Nous communiqué prévenir nous, sommes ñu tant que Khalifa Nous tant que nous sommes koy Nous du ñu dem dialogue ñun ñu mais pas que nous ñu dem discuter avec le ministre de l'Intérieur parce que fofu du dialogue mais bi ñu man d'accord. fa mais mais ordre du jour du jour lettre respecté ba pare ñu naan way ñu génne benn document tudde ko terme de référence document bi ñu wax ci ay ay wax ay fen yu bare naan élection yi oui d'accord peut-être kiiwul mais da jaar na yoon demeewul noonu mais jaar na ay waxu waxu tubaab yoy la c'est faux naan yi ay malentendu le yi ay euh, nit ñi d'accord ki nañu mais garaaw la daag du lolu motax ñu tontu ministre de l'intérieur daf ko lér ne ko yow bu fekkente ne dañu ñëw dafa am lu ñu wóoru woon te yow affaire yooyu fekkewuloo ko bul bàyyi ay nit di la manipuler parce que fonctionnaire yi nekk foofu ñoo ñoo ko bindaloo affaire ñoo bind affaire yi jox ko mu signé dégg nga alors ñun à partir de ce moment là comme noonu la bind nañu le nekk ñun lii yëfi dañuy toog d' abord ñu wax lan la fi xewoon. législative législative mais loolu lan la fi xew lan la fi jot a xew ba ngeen dem di jël police police di encadré ñoo xam ne mooy waa nguur gi ñuy dóor ay lacrymogène ci ño xamné duñu bokku ñu ci candidature ci liste bobu et cetera et cetera c'était man personnellement mosuma ko gis Sénégal ak yenen ak yenen ay élection faute industrielle faute industrielle mo fi amone avec ordre de mission yi. ordre de mission yi ak yenen ak yenen hein? donc lool dañ ko wax nangu ñu way lii mot est constat constat franc diagnostic franc nous sommes des la Nous comprenons comprendre membres. Nous sommes pour mais na ngeen carte d'identité Si je bu on carte d'identité y a 50 milliards de tout ça là donc à vous yoo xam vous bu fekkente noonu la war a doxee de

am nañu am ñaar ñetti kat ko ku ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi donc daan nga may waxee fichier lu ñuy wax ni dañu war a nettoyer kii bi ba pare ñooñu nga xamé dañu am euh, photo jigéen alors que ñoom góor lañu ñu et vice versa ñu rectifier ko ba pare donc foofu la ñuy door a am Sénégalais jëmi seen carte d'identité jox leen seen carte d'identité foofu la ñuy door a am un premier fichier mais heure bu may wax nii y a pas de fichier qu'est-ce qu'on peut auditer rien dégg nga ak yeneen ak yeneen